Chers téléspectateurs de la 7TV, c'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre émission Avocat, le droit à votre service. Émission bi nga xam ne moom mooy traiter les questions juridiques, les cas juridiques, mais aussi l'actualité. tey nag ci actualité la taxaw parce que dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy l'accès à l'habitat mais aussi ñëw ci li nga xam ne mooy la promotion immobilière mais nag ñëw vraiment ci li nga xam ne mooy les logements nan la qu'ils puissent accéder à l'habitat c'est tout à fait un problème malgré donc projet yi nga xam ne l'État mi ngi koy initié donc depuis peu gis nañ l'État du Sénégal nu mu investiro ci li nga xam ne mooy l'accès à l'habitat les logements sociaux et tout mais ba tey dañoo gis na y a un déficit y manque boo xam ne vraiment war nañ ko mën a combler ñan ñoo koy comble peut-être les privés mën nañ ko comblé ñu ciy dalal tey sunu émission ki nga xam mooy Bouna nekk un expert immobilier gestionnaire de patrimoine mais aussi promoteur immobilier monsieur Diouf ñu émission monsieur Tall merci ci invitation bi maa ngi nuyu say téléspectateurs yi et moom la ñuy commencer léegi léegi léegi no questions nous allons les poser li nga xam ne moom la ñuy njëkk waxtaanee mooy par exemple bu ñu xoolee fi mu ne architecture fii ci Sénégal ci wàllum immobilier l'État est toujours li nga xam ne mooy le promoteur immobilier bi nga xam ne moo gën a gën a mag nan ngeen di dundee loolu yéen en tant que promoteur privé. Bah, nous aujourd'hui en tant que promoteur privé euh, état bi mi ngi ci rôle am état bi mi ngi def li ko war c'est-à-dire ak société yi nga xam ne ñooy HLM SICAP et cetera état bi mi ngi ci rôle mi ngi tabax ay bâtiment mi ngi tabax ay dëkkuwaay et y a aussi le programme des cent mille logements waaye nag aujourd'hui preuve est de constater que loolu yëpp doyul parce que y a on a une forte demande au Sénégal il y a une forte croissance démographique nit ñi dañuy ñu ngi ñu ngi yokk Dakar. donc de ce fait aujourd'hui il y dafa am besoin de place et de logement pour ñëpp ñu dëkk Dakar mm-hmm. euh, am na ñoo xam ne tamit ñu ngi ci bitim réew am na ay étrangers yu ñëw dëkk si di liggéey si suñu dëkk. Mm-hmm. et nit ñooñu ñëpp euh, dañu soxla fu ñu dëkk dëkkuwaay yu yu baax fu ñu war a dëkk. donc booy xool la demande elle est elle est elle est forte du mën a résorber li nga xam ne mooy mooy mooy gap boobu noonu mais tey jii nii bu ñu bëggee dem ci li nga xam ne mooy la promotion privée est-ce que le cadre c'est-à-dire est-ce cadre bi nga xam ne mën nañ ko teg pour que la promotion privée puisse s'épanouir est-ce que cadre bi ça existe aussi le cadre bi existe na existe wul c'est-à-dire que mun nañ mun nañ gën a def euh, ci cadre immobilier il y a effectivement am na comme euh, Sénégindia comme Sablus su fi yàgg yu yoo xam ne seen modèle mi ngi fonctionner déjà mais aujourd'hui il y a de la place tellement la demande est forte c'est-à-dire que nit ñi soxla nañu dëkkuwaay ba nga xam ne muy état bi muy ces grands ensembles là mënuñ satisfaire ñëpp mm-hmm. et donc de ce fait ñun on est là pour pouvoir occuper notre place dans un segment benn euh, porox ndoll boo xam ne ñun foofu lañuy ñuy toll. Euh, ñun seen seen li ñuy liggéey mooy tey bëggu nañ ne américain bi européen bi. suñu sénégalais bi dëkk ci diaspora bi bés bu ñëwee Sénégal bu dugg fi ñu tabax du am réeroo ak fi mu dëkk foofu noonu ci Europe. donc loolu mooy suñu combat. et donc aujourd'hui euh, climat. Euh, bi ngay wax ni climat des affaires pour les promoteurs immobiliers war nañ ko gën a mun a yokk war nañ ko gën a mun a defar notamment état bi jàppale promoteurs immobiliers yi euh, peut-être en faisant des partenariats publics privés loolu am na loi bu ñu voté 2021 bu doog jox ay ay ay effet il y a la sphère de Diamniadio qui sphère ministérielle de Diamniadio mm-hmm. am na siège des Nations Unies bi mais su doon suñu sago ñu amaat plus d'accompagnement de la part de l'État que ce soit en termes fonciers ou en termes euh, financiers sous forme d'incitation fiscale c'est-à-dire que bëggu nañ mhm. État bi euh, accompagne ñu ba nga xam ne tey ci l'impôt mu dimbali ñu ci mhm. ba nga xam ne suñu charge yi dina wàññeeku comme ça euh, prix yi ñuy tabaxee tamit dinañ ko mun a wàññi ñun suñu côté kon seen i problème boo koy boo koy boo koy xayma c'est-à-dire c'est plutôt fiscal c'est-à-dire boo xoolee promoteur privé yi c'est-à-dire boo leen di joytu tey jii tey jii ngeen amoon audience ak le président Macky Sall bu ngeen koy wax c'est-à-dire mu alléger donc li nga xam ne mooy la fiscalité loolu donc mooy seen <laughs> promoteur immobilier boo gis dafa war a liggéey pour Sénégal fay l'impôt parce que tey suñu liggéeyee dañu war a fay l'impôt pour Sénégalais yi tamit ko mm-hmm. c'est pas seulement des incitations fiscales en fait li Euh, gouvernement bi euh, mooy mu accompagner euh, promoteurs immobiliers yi que ce soit en termes d'attribution foncière c'est-à-dire jox ñu ay suuf ñu liggéey je vais prendre l'exemple de la France France par exemple tey nii léegi nii sooy tabax promoteur immobilier yi dañuy tabax mairie dañu leen di jox suuf léegi en contrepartie promoteurs yi suñuy tabax dañuy réserver quelques appartements yoo xam ne ils vont être à prix réduit wala pour les habitations à loyer modéré. compensation exactement donc tey état bi suñu jàppale woon si nii wala si nale dinañ gën a mun a avancer mais ce n'est pas seulement une question fiscale. ce n'est pas seulement une question fiscale dinaa ñëwaat ci accès bi accès au foncier yéen tey ji bu ngeen di accéder au foncier dangeen koy jënd la plupart du temps donc loolu mooy la règle wala. la règle veut que ñu jënd terre bi. après euh, y a des modèles qui existent qui ont fait leur preuve yoo xam ne da ngay ñëw tey nga am sa terrain. Mm-hmm. Euh, nga moom sa terrain bu nekk ci zone boo xam ne ñun bëgg nañ fa tabax. dinañ ñëw waxtaan ak yow suñu waxtaan ak yow proposer la tabax si sa kaw terrain et à la fin des travaux ñu delloo la ay appartement ça arrange tout le monde en termes de trésorerie ndaxte ñun on n'est pas obligé à ce moment la di génne xaalis bu bëri pour jënd terrain bi te suñu paree suñu projet euh, propriétaire bi dina gis boppam dina ci gis boppam ndaxte dina récupérer ay appartement ba multiplier euh, sa surface foncière donc loolu daal ci loolu ñu ñuy yëngatu yi loolu mooy c'est le modèle actuellement bi fonctionne Sénégal dina mën a am gain de gain de cause yaa ngi wax ci li nga xam mooy partenariat mm-hmm. public privé yi donc boo waxee tamit aussi wax nga lool wax nga aussi les géants aussi yi nga xam ñoo nekk ci immobilier mm-hmm. c'est-à-dire comme lu mel ni Sablux comme lu mel ni Séné Séné Jinja est-ce que ñooñu occupé wuñ plus de place que les autres aussi ci wàllum partenariat Euh, ils ont leur positionnement ñun am nañ suñu positionnement euh, Sen Sen du def la même chose que Sablux mhm. qui ne fait pas la même chose que Sénégindia pour ne pas les nommer mhm. qui ne fait pas la même chose que Priams donc chacun a son cœur de métier ñun on est spécialisé ci haut euh, standing yéen yéen a ngi présent ci haute standing bi léegi bu ñu ñëw ci particularité yi par exemple sànq yaa ngi koy wax ku nekk dafa am particularité par exemple ñun duñu xam exactement lan mooy particularité les promoteurs immobiliers yenn particularité mooy dégagé wu par rapport ak yéen par exemple par rapport ak ñun par exemple on a eu un chantier am si benn chantier récemment mhm. boo xam ne propriétaire bi dafa bëggoon ñu poser ko ay carreaux de un mètre sur trois mètres mhm. on a cherché au Sénégal on n'a pas eu l'expertise qu'il fallait pour poser ce type de chaos mënoon nañ abandonné defuñu ko dañ dem bitim réew yi li ñuy wax les compagnons du devoir kenn koo xam ne seen àdduna yëpp dañ ko jagleel artisanat moom moo ñëw moom lañ déplacé mu ñëw dëkk Sénégal poser carreaux yi mais en plus dañ ko jox ay éléments yu muy former pour tey suba su jógee Sénégal qu'on puisse garder cette euh, même expertise. loolu la ñuy ooyee de compétence yaakaar naa. voilà moom ngeen di moom ngeen di moom ngeen di def dinañ ñëwaat un peu ci li nga xam ne mooy charte immobilier bi. Mhm. sànq yaa ngi koy wax des fois ñii dañuy jógee bitim réew ñëw fii jënd mais boo xoolee actuellement Sénégal est-ce que donc ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew maanaam les étrangers ñoo gën a am les moyens pour acheter li nga xam ne mooy les biens fonciers boo xoolee spéculation mais aussi ak charte prix yi nga xam ne yéen a koy proposé. ba spéculation foncière bi lañ ko fekk. donc Dakar pays yi ñu ngi yokk depuis des années et des années en un an le prix du foncier jël na au minimum cent mille francs au du mètre carré si vous suivez un peu euh, aujourd'hui ñun Sensen ne construit pas pour les étrangers Sensen construit pour les Sénégalais on est une entreprise sénégalaise donc on s'adresse en premier euh, aux Sénégalais maintenant diaspora bi suñu buggee gis suñu liggéey xam ne suñu liggéey dafa rafet. ñëw bugg a jënd loolu duñ ci mun dara. tubaab yi tamit su ñëwee bugg a jënd li ñuy tabax mënuñ ci dara. mais parlons un peu de la clientèle tey jii nii yéen seen clientèle par exemple wala bu ñu xoolee de manière générale. ñan ñoo gën a mën a jënd actuellement les biens immobiliers est-ce par exemple ñu ngi jaay pare nañ benn immeuble Almadi boo xam ne lépp jaay nañ ko euh, su ñuy def euh, rapport bi ratio bi on est à cinquante cinquante cest a cinquante pour cent de résidents sénégalais cinquante pour cent de résidents étrangers et ci même yooyu noonu il y a des gens de la on peut dire pour cent de Maintenant, il y a pas man je ne comprends pas cette différence entre diaspora et locaux. ak locaux donc gisoo différence boobu dinaa ñëwaat un peu ci les modes de construction parce que ak chaleur bi ni mu ni mu mel est-ce que yéen a ngi xalaat ci vraiment donc changer les modes de construction ci wàllum construction mais aussi ci wàllum matériaux aussi yi nga xam ne yéen koy utiliser aussi. c'est obligatoire c'est obligatoire on n'a pas le choix parce que on est obligé. Euh, conformer wu et confronter wu aux exigences climatiques ñu ngi gën di tàng ñëpp seetlu nañu ko euh, chaque année des gën di tàng donc du coup il y a des nouvelles techniques de construction qui prennent en compte ce volet climatique Et euh, il y a des briques en, en, argile qui permettent de pouvoir laisser circuler euh, l'air, par exemple. Et il y a des entrepreneurs sénégalais qui le font au Sénégal. li nga xam ne mooy investissement parce que boo xoolee promoteur immobilier actuellement donc lépp li ñuy investir dañuy investir dans le commercial donc du ñu ñëw ci li nga xam ne mooy mooy social bi mais tamit lool est-ce que tamit du problème mais aussi un manque à gagner aussi. aujourd'hui comme li mu koy waxee rek état bi état bi. son rôle c'est de pourvoir à tous les Sénégalais un habitat décent c'est-à-dire que tey état bi moo war a dëkkal Sénégalais Sénégalais yëpp mm-hmm. en tant que promoteur privé ñun dañu am ay coûts dañu am investissement dañuy fay l'impôt encore une fois et de ce fait mënuñu dugg ci sociale bi mm-hmm. parce qu'on n'a pas les Euh, comment ça s'appelle euh, levier économique. levier économique et surtout on n'a pas la même rentabilité mm-hmm. dans le social ou dans l'habitat normal ouais. ce qui fait que ñun dañu am ay charges mm-hmm. am ay salariés euh, moo tax duñu fa mën a dugg par contre ça ne veut pas dire que c'est impossible dans l'avenir moom mooy li ma doon wax sànq mooy aujourd'hui bi état bi am na ay suuf yoo xam ne mën na ko jox promoteur privé yi mm-hmm. et sous réserve promoteur privé yi suñ tabaxee am benn partie bu ñu ci jagleel habitation loyer modéré. donc lool sur la base d'une collaboration day mën a nekk. exactement. Mm également il y a la loi euh, de partenariat public privé bu ñu voté deux mille onze euh, deux mille vingt et un plutôt su ma juumul. Mhm. qui fait que aujourd'hui état bi dafa war a consulter Euh, entreprise euh, privée yi pour ñu mun a soumissionner à des appels d'offres excluant en tout cas les secteurs régaliens de l'État mm-hmm. donc loolu suñ ko defee dina mun a dimbali promoteurs yi mm-hmm. et en même temps euh, jox euh, benn dynamisme euh, entreprise sénégalaise sénégalaise yi mm-hmm. ba nga xam ne tey on pourra am benn géant euh, sénégalais dans l'immobilier et pourquoi pas en avoir plusieurs puisqu'on a déjà l'exemple de des de prédécesseurs que mm. vous avez cités tout simplement. qu'on a cité mais je pense que c'est un manque à, gagner par exemple bu ñu xoolee Sénégal ni mu mel bu ñu xoolee marché bi ni mu mel avec li nga xam ne mooy la pauvreté parce que bu ñu koy xoolee ba tey Sénégal dans tous les cas c'est la pauvreté qui domine je pense que c'est un manque à gagner est-ce que yéen tamit waroo leen xoolaat s'adapter un peu à la situation par exemple par rapport ak li nga xam ne mooy sénégalais Sénégal ni mel configuration la pauvreté cest gën a bëri am logement sociaux mooy gën a yomb ci ñoom am li nga xam ne mooy logement yi nga xam ne dafay gën a cher un peu c'est commercial. Bah. il y a ce qu'on appelle les coûts incompressibles c'est-à-dire que tey sooy tabax da euh, soo buggee tey def investissement yooyu yëpp ba pare di ko joxe habitation loyer modéré c'est-à-dire que da perte donc euh, kenn liggéeyul pour perte par contre mun nañ liggéey pour sénégalais bu nekk gis ci boppam c'est-à-dire que encore une fois partenariat public privé wala état accompagne ñu ba nga xam ne tey promoteur bi su construire euh, cent appartements par exemple moom ci quinze yoo xam ne mun na nekk habitat habitat loyer modéré noonu lañ ci mën a génne mais on peut pas demander à un promoteur privé dont le but effectivement est de faire du profit bu ñu ko fàtte euh, de se consacrer uniquement euh, à des logements sociaux. Bon, actuellement vous n'êtes pas encore prêt pour faire des logements sociaux actuellement. Avec l'accompagnement de l'État, on est toujours prêt. Vous êtes mais sans l'accompagnement de l'État, vous n'êtes pas prêt. ce n'est pas notre corps de cible. ce n'est pas votre dinañ ñëwaat un peu ci financement parce que je pense que ne financement bi aussi c'est un peu compliqué avec les banques taux de financement yeeg ñi ngeen di ngeen di régler ak c'est un peu compliqué aussi. bah euh, dafa am lu ñu fi loo xam ne mënuñu ko teggi. que les taux directeurs de la BCEAO qui font que. Euh, banques yi aujourd'hui elles empruntent à un certain taux te ñoom tamit suñu buggee Euh, suñ ci buggee génn il faut qu'elle prête à un autre taux supérieur auquel ils empruntent donc loolu ñëpp mun na dugg ci xelu ñëpp waaye aujourd'hui euh, taux yi yegg nañ ba fenn taux benn niveau boo xam ne euh, effectivement sénégalais moyen bi dina am ay difficultés pour jënd appartement en tout cas ñun yi ñuy tabax par contre Euh, li ñu mën a def mooy travailler toujours en partenariat avec les banques c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous les promoteurs privés euh, on a un projet on a un terrain les ressources les clients euh, da ngay dem seeti banques yi ñu lay dawloo di la laaj ay papiers yu dul jeex yu dul jeex ngay fournir fournir au final mu am lu bloqué doo xam lan la kenn du wax fu mu bloqué et si les banques accompagnaient mieux les promoteurs privés tey dinañ mun a en premier temps euh, en termes de rapidité d'exécution c'est-à-dire que immeuble bu ñu war a tabax en euh, trente mois dañ ko war a mun tabax en vingt quatre voire dix huit mois mais tout ça des fonds par contre des choses sur lesquelles on ne peut pas influer c'est le taux directeur euh, la BCEAO emprunte son argent est-ce que vous organisation boo xam ne que ñoom xàccandoo dóorandoo parce que boo xoolee yeneen aspects yi par exemple les avocats on a l'ordre des avocats les notaires on a l'ordre des notaires est-ce que vous avez une organisation boo xam ne moo leen regroupé moo ngeen bañ a éparpillé parce que boo boo leen éparpillé donc dafay wàññi li nga xam ne mooy seen doole aussi ba su amee tamit jóguma ko mais aujourd'hui la promotion immobilière est un métier en plein développement au Sénégal en pleine croissance mm-hmm. ñun on a tout intérêt à nous regrouper euh, pour pouvoir peser plus en tout cas avoir des échanges beaucoup plus fructueux et intéressants loolu daal en tout cas si loolu la war jëm mm-hmm. en tout cas mais pour l'instant su nekkee am na regroupement de promoteurs yëguñu yëguma ko mais euh, c'est une bonne initiative il faudrait creuser dans ce sens dans ce sens dina wax peu de la loi aussi parce que y a une loi boo xam y a le code de l'urbanisme ko mm-hmm. ngi fi est-ce que aussi le code est-ce que nekkul tamit benn problème boo xam ne dafay impact ci li nga xam ne moo seen liggéey emploi par rapport ak disposition légale yeeg yooyu noonu yëpp. la loi c'est la loi la loi c'est la loi donc on peut rien y faire après effectivement euh, au niveau des services des urbanismes il y a le code qui est assez contraignant euh, on s'efforce en tout cas ñu ngi góorgóorlu pour mun a euh, dem dans leur sens à eux mais ñoom tamit dañu war a mun a comprendre parce qu'il y a aussi des soucis de Donc euh, c'est un échange qui se fait au quotidien. Ils sont assez diligents, assez compréhensifs. Maintenant, logisme nañ ko améliorer. donc euh, voilà c'est ça passe par la discussion. ça passe par la discussion dinañ ñëwaat tam ci modalité d'accès yi booy xool parce que actuellement ak ni crise bi mel ak ni réew mi ak ni réew mi mel je vois que nit ñi de plus en plus dañuy dem ci li nga xam ne mooy la VFA. Mhm. maanaam dañuy jënd mais après dañ koy fay en. en, en échelonnement mm -hmm. donc est-ce que aussi loolu de solution boo xam ne vraiment war nañ ko mën a adopter pour ñu mën a régler li nga xam ne mooy le problème de l'accès à l'habitat wala yéen ba tey content bi moo leen gënal non la VEFA est un système idéal mm-hmm. c'est-à-dire que tey VEFA pour le microcosme sénégalais VEFA baax na trop mm-hmm. après on retrouve les mêmes contraintes c'est-à-dire que ku ne ji appel de fonds échelonnement euh, des paiements mhm. waaye loolu soo ko waxee dafa am banque buy accompagner derrière mhm. et donc il faut que la banque soit diligente donc suñu amee système boobu où on a une banque qui est diligente nous on n'a pas de problème avec la VFA l'essentiel effectivement c'est de vendre des apparts et de pouvoir proposer euh, des logements décents et de standing à nos clients Par contre, aujourd'hui, euh, nous, sur euh, le projet des Almadji et des Mamelles, on est parti sur la VFA. Donc on fait déjà de la VFA, qui est un système déjà éprouvé, mm-hmm. et on va sortir deux projets à Mermoz et aux Almadies, deux R plus 10, on sera également sur de la VFA. C'est encore sur la, sur de la VFA. Dinañu un peu sur les sites aussi. Mm-hmm. Actuellement, Dakar la nit ñi gën a gën a bëgg. Mm-hmm. Mais boo xoolee superficie Dakar dafa dafa ndaw dafa ndaw trop. Mais non. nan la ñuy def c'est-à-dire on construit en hauteur wala dañuy génn un peu de Dakar xool yeneen sites explorer aussi d'autres sites pour que nit ñi mën a mën a aussi accéder à l'habitat ma ma man Dakar laa juddoo màggee yaroo mm. donc euh, su doon sama sañ-sañ ma dëkk Dakar sama doom yi dëkk Dakar ñëpp dëkk Dakar mais on est confronté problème de place comme ni nga koy waxee nii mm-hmm. donc soit ñu yéeg en hauteur donc ce fait déjà mm-hmm. soit ñu génn Dakar mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce pertinent de proposer à quelqu'un qui a tous ses d'intérêt à Dakar Dakar lay liggéeyee Dakar la xaritam yi nekk Dakar la waajuram yi nekk nga ne ko pour mu jóg dem jëndi Diamniadio qui est d'ailleurs très bien wala mu génn Dakar alors que tous ses centres d'intérêt se trouvent à Dakar mieux vaut trouver une solution qui permette à cette personne mu toog Dakar dëkk Dakar mm-hmm. nekk ak am di jàmmam am di jàmm sànq yaa ngi wax ci accompagnement bi ak ci cadre bi parce que dama ci ñëwaat un peu c'est-à-dire actuellement ak Dakar ni mu mel. parce que ñun ñëpp Dakar lañ bëgg parce que centre d'activité yi fii la nekk. liggéey yi fii la nekk nit ñi fii lañ nekk est-ce l'État warul leen mën a accompagner ci loolu cest à génne li nga xam ne mooy liggéey yi donc génne ko délocaliser ko bu ko déco délocaliser je pense que les gens vont suivre te bu nit ñi suivre rek il y a les, les sphères ministérielles de Diamniadio qui sont en construction, il y a le siège de, des Nations Unies. Donc il va y avoir une activité qui va se développer autour, une activité de service. Euh, de ce fait, dina am nit ñu mën a dëkk foofu euh, mais tey euh, nit ñi Dakar lañ bëgg a dëkk nit ñi ñoo bëgg Dakar nit ñi Dakar lañ bëgg a dëkk. Mm-hmm. yow xamoo ko bëgg a dëkk Dakar nga bëgg a dëkk wala nga bëgg génn Dakar. <laughs> ça dépendra. ah <laughs> ça dépendra. kon boog nañ def en sorte ba ku bëgg a dëkk Dakar. Mm-hmm. mun dëkk Dakar ku bëgg a génn Dakar. Mm-hmm. génn Dakar su ko neexee. je pense qu'actuellement est que génn Dakar gënul cest bu ñuy conseiller un peu les les Sénégalais à l'habitat est que sortir de Dakar gënul parce que actuellement comme ni nga ko waxee ñu ngi construire benn en hauteur. on construit des appartements. des on a une autre qualité de vie on a une autre qualité de vie euh, il y a les moyens de transport qui se développent il y a le terre qui rentre en, euh, en jeu donc de ce fait tey dëkk Diamniadio di liggéey see Dakar c'est pas problématique et le prix du foncier est moins cher à Diamniadio, Mbour, etc. qu'à Dakar. C'est un juste compromis à trouver que chacun chacun doit trouver effectivement euh, son bonheur. C'est-à-dire que celui qui a envie d'habiter à Dakar, habite à Dakar. Celui qui veut sortir, il sait que Dakar est moins cher, euh, du moins, hors de Dakar, on est moins cher, mm. qu'il y a plus d'espace, une meilleure qualité de vie. C'est un choix à faire. C'est comme demander pourquoi les gens habitent à Paris et d'autres euh, à Montpellier. C'est juste un choix à faire. li nga xam ne mooy la la ressource financière aussi. tout à fait toujours mais c'est c'est ressource financière bi wax nañ ko ba pare. Mhm. c'est-à-dire que aujourd'hui euh, ku génn Dakar di nga mun jënd entre guillemets terrain moins cher que qu'à Dakar tabax dëkk fak say njaboot waaye tey loolu laa lay waxati rek. est-ce que soo demee dëkk Dakar war a fay transport tous les jours wala essence tous les jours pour dem xëy Dakar est-ce que mhm. donc chacun trouve euh, trouve son bonheur. trouve son bonheur ñu ngi wax sànq si un peu ci ci Diamniadio mais boo dégloo un peu les les experts dañ naan la le sol est argileux cest bu ñu investir Diamniadio il faut investir li nga xam ne mooy le double wala le triple pour am li nga xam ne moom nga war a mën a am Dakar loolu tamit est-ce que du indiwaat beneen beneen problème ci wàllum promotion immobilière aussi. Bah. aujourd'hui le sol de Diamniadio est argileux effectivement donc sooy gas il faut nga fu sore sore sore balaa mun a def c'est une contrainte à prendre en compte. Après, à voir, faire des arbitrages, voir quel est le plus coûteux ou pas. Encore une fois, c'est un choix personnel, je ne pourrais pas me, prononcer. doo ci mën a doo ci mën a doo ci mën a doo ci mën a xuus doo ci a doo ci mën a sori sama technicien mi ngi naan ma li ñu dese ci ci temps bëriwul mais nag je voudrais vraiment inviter un peu les mhm. ñëw ci li nga xam ne mooy le social parce que mhm. boo xoolee Sénégal vraiment nit ñi donc amuñu xaalis bu baax a baax pour mën a acheter l'immobilier certes y en a qui achètent am na ñu koy jënd vraiment mais je pense que c'est un manque à gagner boo xam ne yéen a ngi koy yéen koy perte bu ngeen ko bàyyee donc dafay nekk au profit de l'État te alors que l'État sax boo xoolee bu baax a baax li nga xam ne mooy les logements sociaux donc mënu ko gérer moom kese donc est-ce que waruñu dem dans les perspectives c'est-à-dire bu ñu waxtaan actuellement dans les perspectives donc yan perspectives comme les logements sociaux leneen ak leneen ak leneen ak leneen est-ce que waruñu dem ci perspectives yi ni mel. nous aujourd'hui on est patriotes. donc euh, on ne refusera pas su fu ñu état bi soxla dinañ fa dem dimbali leen pour ñu mun a euh, defar logement sociaux yi donc euh, on est à l'écoute et on est prêt à travailler avec l'État travailler avec l'État dinaa terminer un peu avec les coûts de construction un peu parce que des fois aussi c'est c'est compliqué c'est important euh, ciment bi cher na mm-hmm. fer bi cher na donc qu'est-ce que vous dites aussi par rapport à ça qu'on puisse nous faciliter loolu yëpp après dafay impacter ci li nga xam ne mooy prix bi looloo tax tey ñu koy waxee nga naan Euh, sànq nga ne Sénégal dund bi dafa cher mais soo à àdduna bi yëpp a cher jamono ji donc euh, aujourd'hui euh, le coût du ciment reste le même un peu partout du gravier et cetera comme je disais l'avantage euh, du moins ce qu'on nous en tout cas on demande c'est d'une part un accompagnement de l'État État gunge ñu si fànn bu mu ko xalaatee bu mu ko munee mu gunge ñu daal et que aujourd'hui banque yi tamit mun accompagner promoteurs yi. Mhm. il faut qu'on fasse euh, euh, une sorte de triptyque qui permette que l'État, les banques et les promoteurs puissent s'asseoir une même table mhm. et pouvoir sortir des solutions face à ce problème. moo tax sànq ma leen laaj est-ce que organiser woon parce que a def c'est vous qui doit faire le premier pas ou bien c'est l'État qui doit faire le premier pas excusez-moi. C'est à l'État de faire le premier pas. C'est à l'État de faire le premier pas. Tout à fait. <laughs> Merci beaucoup, monsieur Diouf. le temps qui nous Merci beaucoup. jox la kàddu nga def sa dernier mot ñu doog clôturer. Euh, je vous remercie de de la visite, c'était très euh, enrichissant et euh, nous sommes là pour répondre à vos demandes. waaw ñu ngi woon ak tey ki nga xam ne mooy Bouna Diouf Seck un expert immobilier gestionnaire de patrimoine mais aussi promoteur immobilier tey moom la ñu jëloon ci émission avocat waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy l'accès à l'habitat mais aussi nan la ñuy def ba les Sénégalais vraiment gis seen bopp ci li nga xam ne mooy l'habitat parce que Sénégal je que ñun ñëpp ñoo ko bokk te l'accès à l'habitat c'est un problème boo xam ne dañ ko war a régler gis nañ l'État li nga xam ne moom la ci def mais dañoo gis ne ba tey ça manque vraiment war nañu mën a augmenter li nga xam ne mooy mooy l'offre pour mu mën a vraiment sénégalais gis ci gis ci seen bopp donc le privé aussi war nañ leen ci mën a boole donc bu ñu leen ci boole je pense que dinañ mën a combler le gap def li nga xam ne mooy écart bi entre li nga xam ne mooy la demande et l'offre tey leen leen andiloon seen émission avocat ñu ngi remercier équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndaloon tey Amadou Ndakebe Souley Sy Khady Sarr ci montage bi nous vous rendez-vous la semaine prochaine merci